audu billah bismillah inna waliyallah xasbiyallah wa ma tawfiqiya illa billah bi jaahi jaari lbadii wa xadimi shafii bismi lilahi alladi alquranu qad nazala min hubtidaai wa arju indahu nuzula alhamdulilahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawi nawaali lwaali laqi lisaani waxlulan minhu luqad waj'alhu dhaakiran wa shaakiran abad fahimni al-ilma wa zidni ilma wa amala wa adaba wa fahma sudura qawmi yashrahan lid-diini wan-nuuri wal-islaami kulla hiini falillaahi al-hujjatu al-baaligha falaw shaa'a lahadakum ajma'iin bokki juri di assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu ci turu commission culturelle bi nga xam ne mooy laj na tas saxaafiya bi nga xam ne sëriñ Sidi Mbakke moom sëriñ Abdul Ahad moo ko tànn muy saytu ak toppatoo mbooleem lu aju ci jaar-jaari sëriñ Abdul Ahad ak i waxtaanam ak lu aju ci mbiram noo ngi leen di nuyu ci turu commission culturelle boobu fas yéene ànd ak yéen ci jataay yim baaxoo amal ci jamono boo xamee ne màggalu sëriñ Abdul Ahad gi am ci at mu nekk ci korite ci ñaar fukki fan yaak ñett ci weeru Shawwal commission boobu ñoo koy taxawee ñoo fas yéene ànd ak yéen ci niñ ko baaxoo ànd ak yéen ci jataay yi ñu leen di amalal fas yéene amal jataay boo xam ne day jëm ci jaar-jaar ak liggéeyub sëriñ Abdoul Ahad nu feggoo ci nag ak yaari mbokk yoo xam ne kenn ku ci ne yaa ngi ci biir commission boobu di ci liggéey ci sama wetuk ndeyjoor te féete leen càmmooy yéen ñu ñuy seetaan muy sëriñ Abdoul Ahad Bousso Muxtaar ci sama wetuk càmmooy te féete leen ndeyjoor yéen ñu ñuy seetaan sëriñ Abdoul Ahad Jaxate fas yéene waxtaane sëriñ Abdoul Ahad waxtaane gi lees ci jublu rek weesuwul mag ñi fàttalikoo ci ndaw ñi jàngee ci ndax réewum Sénégal yàlla def na fi ay nit yàlla def fi ay góor yàlla yoo xam ne liggéeyal nañu réew mi liggéey boo xam ne su fekkee ne réew mi mi ngi koy seetlu di ko toppatoo di ko jàngat xaw ma man réew mooy ñàkk fu muy teg tànkam waaye Sénégal lu ci bokk kenn ci nit yàlla yooyu nag as Cheikh Abdoul Ahad nekkoon koo xam ne liggéeyal na Sénégal liggéey bu rëy ci wàllu jikko liggéeyal Sénégal liggéey bu rëy ci wàllu xam liggéeyal senegal liggéey bu rëy ci wàllu xalaat ak jëf yu rafet ak jikko yoo xam ne réew mu ko am te niitoo ca jaar ca sa doomi réew dana bokk ci peuple bi nga xam ne mooy gën a mucc te euh, gën a jëm kanam loolu waral nag su màggal gi ñëw bernde yi nga xam ne war na waa warees na leen ko berndeel ci màggal gi te la ca jiitu mooy berndeeg ruux commission bi di fa yéene bernde googa dara du ca manqué mu ne nag gis gisut luy ëpp solo ci berndeel nit ku dib jullit lu dul fexe ba berndeel ko ci xam berndeel ko itam ci jikko yu rafet bi ñu jàngatee sëriñ Abdou ñu gis ne mbooleem la ab di soxlawoo ci nu muy tabaxee dundam ngir mu jag nu muy tabaxee ëllëgam ngir mu jag loola buñ ko niitoo ci moom des na ci mën a jànge bi muy ndaw ci saahir ndaw lu toll ci ndawam war a takku taxaw fas jom sàkku xam-xam ci ak njub buñ ko jàngatee ci moom benn ndaw du ne aw ma royuwaay jamono bi muy ndaw jëf na jëf joo xam ne ndaw lu ca roy bu ëllëgee da nga raw say da nga rawi mag bi muy mag itam toll ci mag war a taxawal lu mag war a taxawal samp ko rek ya ca ajoog taxawal ab dëkk taxawal sam réew la cay wàllu lu mag war a roy boo ñëwee ci Sëriñ Abdou Lahad da nga ca fekk lu doy sëkk bi muy kilifa goo xam ne jiite na ab tarixa jiite ab dëkk képp ku jiite ab tarixa mbaa nga jiite ab dëkk nanga fa nga war a jaar ak sa ñoñ sa waa dëkk war faa jaar ak ña nga jaboote Sëriñ Abdou bu ñëwee niitoo ci moom loolu jànge ko ci dañuy fekk mu mat koo ko sëkk kon mboolem jikko yooyu lañu fas yéene incha allah xool lu ñu ci mën a tànqe bokk ko yéen bokk jullit yi ngir ñu jariñoo ko kenn ngi nii ci Sénégal koo xam ne jullit yépp a ko bokk lislaam bépp a ko bokk moom lañu fas yéene berndeel leen ko ànd ko commission culturelle bi nga xam ne ñooy taxawee loolu kon sëriñ Abdoul bu Bousso danoo bëgg nga tënkal nu sëriñ Abdoul Ahad euh, moo doon kan ci jëmm moo doon kan ci jikko ak aslëf ci ab liggéeyam sëriñ Abdoul Ahad moom ku ko bëgg xam dëgg dëgg dëgg mooy kan ci gàttal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ak di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu tàmbalee suñuy kàddu ci sant yàlla bu baax moom mi nga xam ni moo nu sàkk te moom nu baaxee nu nu bokk ci njabootu Cheikhul Xadim radiallahu anhu di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama di sant Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom la ñu sunu borom booleel di am mbégte nag di dellusiwaat fii ci ni ko sëriñ bi waxee ci ndigalul kilifa yi di sëriñ Sidi Bakki Abdul Ahad di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te mu may ko wér ngir fàttaliku jëmm joo xam ne kenn du ko fàtte ngir ab tolluwaayam ci réew mi ab tolluwaayam ci diine ji waaye nag ab tolluwaayam ci nun murit yi nga xam ne noonu la jiite woon muy ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nga ne bu ñu bëggee wax mooy kan dañuy wax ni mooy ki nga xam ni mooy al mu'minu xaqan nekk al muslim nekk al muhsin xaqan nekk mën nañu wax ne kon mooy jullit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg di murid saadiq di citoyen bu remplir mbooleem ay devoir am ci am réewam Cheikh Abdul Ahad nag mi ngi gane àdduna ci atum Balsasin ci njaareem dëppoo ak 1914 ci diggante ñaari way waajur yoo xam ne jëratul ñu ko di ko baamu nañ ci jaar rek te jàll muy Cheikhul Xadim ñi ñëpp xam ak soxna Mariama Jaxate ñi ñëpp xam fa mu bàyyi ko ak na mu fa bàyyi ko ba dugg ci loxoy Cheikhul Khadim ak taamu gi nga xam ne moom la Serigne Touba taamu woon askan woowu mu nekk koo xam ne it kere ba mu gënee àdduna dëgg gis nañu Serigne Touba def ca ñu dégg mu wax ca loo xam ne mëseesu koo gis mëseesu koo dégg te loola mooy bi mu gënee àdduna mag ñi wax nañu ne lépp lu mu daan defal ku ma sa feeñ ci kër gi daf ko duble def ko ko ñaaram waaye loola moo mel ne am na lu jublu ci am na jublu ci nit ñi xam lu tax ngir kere bañ koy sàkkal tour ba mu yebalee mag ña daf leen a wax ne dafa toppaat ci seen ginnaaw ñëw ne leen gan gi de nañu ma ko ñaanal ndax am naa ci moom yaakaar yaakaar yi Sëriñ Tuubaa joojee nag moo dëggu ci moom moo tax mu fees dell place bi nga xam ne moom la tooge woon mat sëkk li mu doonoon bi mu feeñee it jaaral ba jaar ci foofu mu tudde ko it tur woo xam ne wu raaroon la ci jamono ci rawatina nag ci fii nga xam ne fi la dëkke muy Abdul Ahad jàpp naa ne xawma feneen waaye réew mii moom ci moom lañ ko njëkk a dégg kon feeñ na jamono ci njaareem mën nañoo wax ne bi sëriñ bi ñëwee njaareem mooy ki njëkk a feeñ foofa ci ak njabootam ca njaareem ci ama bal sasin ci lu ñu xam ci njabootam gu góor doon it koo xam ne wax nañu ne bi mu feeñee sëriñ bi def na ci lu wuute ak la mu naan def ci kaw yokk lépp loo xam ne daan ko defal kon loola mën naa wane ne moo tax mu nekkoon ku xër ku am teraanga koo xam ne kenn du nattable teraangaam kenn du nattale ak xërëm itam ci lu baax waaye yaakaar ju mu am ci moom itam te gaaral ko ci mag ñëpp te sàkkoon ñëpp ñaanal ko ko itam yaakaar naa yaakaar joojee dëggu na ci moom dëggu wu leer tudde koy tur wu raar woo xamante ne bi mooy Abdul Ahad Abdul Ahad am lu muy firi jaamu yàlla mi nga xam ne moom mooy kenn képp bokkaale bokkaale wuuta dara ci dara mu jëmmal nag melo yooyu yëpp tax na bi mu gënee àdduna ba ne juneet rek mata dal dañ ko jaarale fii jaarale boolem doomi soxna yëpp te mooy jàngal ko alquranul karim boole ko ak rakkam yooye jox ko nijaayam jooju nga xam ne moom la ko sëriñ bi dénkoon te waxoon ko ca lam ko wax ca ndénkaaneelu lam ko ko dénkoon xamal ko ne doonul ku baaxoo dénk ay doom seeni nijaay waaye li mu def ci moom lay la bëgg mu defal ko ko ci njabootam gi mu ànd ak moo ñoom nekk fa foofee la jàngee alquran ba mokkal ko mokkalin wu rafet bind fa kaamil yàlla dogal bi muy daata jox jébbale kaamil bi Cheikhul Khadim ci la Cheikhul Khadim ñibbisee Touba bi mu ñibbisee Touba ci tënk mu ànd ak Cheikh Mouhamadul Moustapha jox ko ab kaamilam waaye taxaw taxawaay boo xam ne foofa la daal di tàmbalee wuutee ak lañu xamoon ci ndaw lu toll ci ay atam ci zaahir ngir bi ñu leerale ginnaaw Cheikhul Khadim ba noppi ba kenn ku nekk am la muy am te ñoom jamono yooyu ñu nekk ay ndaw yoo xam ne ñu ngi toll moom mi ci mag robbagul fukki at ak juróom dañoo jël lañu amoon ci seen way waajur dénk ko seen jenn nijaay seen nijaay jooju dencal leen ko ci barab bu ñuy denc xaalis waaye ci jamono yooyu moom la jóg wax ne li nga xam ne moom la am moom ak rakkam nañ ko ko jox ndax dafa amoon yéene yi jamono jamononteeg waaye juram ba liggéeyal ko ni nga xam ne ni la ko ay magam liggéeyale woon waaye ginnaaw yàlla dogalu ko nag te tey lam amoon ci wàllam moo rakkam génne nañ ko ba teg ko barab loola nañ ko teg ci loxoom bañ ko tegee ci loxoom mu teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadul Moustapha ne ko ne ko dugalal ne ko ko dugalal ci liggéeyu Serigne Touba bi kon foofu la tàmbalee wootee ak lañu xamoon ci ndaw ca jamono yooyu pastéefam tàmbalee feeñ foofu walanteem tàmbalee feeñ foofu ak bëggam Serigne Touba tàmbalee feeñ foofu ak nangoo liggéeyalam Serigne Touba itam tàmbalee feeñ foofu motti li yéene ju amoon ci Serigne Touba it tàmbalee feeñe foofu mu ànd ak Serigne Modou Moussa ci noonu nekk loxol nday joram di ko doxal di ko waxal boole kook nag di jàng xam-xam nam ko war a jànge ci ñi nga xam ne ñoom la ko Cheikh Mouhamadul Moustapha booleeloon ba géeju ci xam-xam yi yi nga xam ne daanañ ko jàng ci réew mi yépp loolu li koy wone mooy ni mu meloon ci alquranul karim tafsirul quran bil quran te euh, Sëriñ Tuubaa daf ñoo waxoon ne xam-xam bi gën ci xam-xam yi mooy tawxiid boo ci jógee nag tafsirul quran boo ci noppee xadis wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxiidu rabbina ala ittifaaqi wa baadahu tafsiru lil qurani summa alxadiisu qaalahu daymani mu ba mu ci jógee mu sàkk mboolem xeeti xam-xam yoo xam ne yu koy jariñ la ci diineem ak yu koy jariñ ci addunaam kon mu nekk koo xam ne waajal nañ ko ci wàccaay yi nga xam ne moom la ñuy waajalee doomi soxna yëpp ci xeeti xam-xam yëpp tàmbalee ko ci alquran karim ak tafsirul quran xadiis fiq tasawuf ak xeeti jumtukaay yi nga xam ne dañ koy soxla ci xam-xam yëpp doon mel ni que ay naxwoo ki balaaxa ak yeneen ya ca aju yëpp mu doon jëmm joo xam ne itam teel nañ ko dénk responsabilité ndax ci ak ndawam la ko Cheikh Mouhamadul Moustapha sancal dëkk bu ñuy wax Kàbbu Gay boole ko taalibe Sëriñ Tuubaa ya nekk foofu mu féeteek ñoom hmm. taxaw fa taxawaay bu mat sëkk bi mu ne juneen nag la tàmbale di sanc ay dëkki boppam dëkk yooyee am nañ lim nañ ci yu bëree bëri sanc na fu ñuy wax mbaraan gay sanc na fu ñuy wax euh, kabu gay googu nga xam ne fa la ko sëñ Moussa yóbboon sanc na fu ñuy wax daaru salaam bokki barkas ba ci ixtilaafaam ni mu sancee euh, Touba Belel bo kadda bokk na ci barab yi nga xam ne sancoon na fa di liggéey te ku ne xam na ne taxawal ab dëkk samp ay daara ci lu jiitu fanweeri at te diggante boobu fekk na mboolem loo war a xam nga xam ko mboolem taxawaay yoo war a taxaw nga mën koo taxawee mate ko ci wet yi nga ko war a mate yëg loolu xam nga ne lu jafe-jafe waaye su borom baaxe na ko noonu la nekk ba noppee gis Cheikh Mouhamadul Moustapha mu continuer ak Cheikh Mouhamadul Fadil te na mu ànde woon ak Cheikh Mouhamadul Moustapha daana wax ne ñaar yi loo ci ñàkk ci ab jant balaa jant bee so nanga ko am loo ci ñàkk ci guddi balaa bët set nanga ko am muy ab sëriñ ak way wayjur moo ne ba mu ba mu noppee gis Seexul Xadim mi nga xam ne moo ko féete woon ci ñaari wet yooyu yëpp dafa jël Cheikh Mouhamadul Moustapha jox ko boppam muy di sëriñam hmm. mu jël Cheikh Mouhamadul Fadil def ko muy wayjuram hmm. loolu day dëggal li wolof di wax ne képp koo xam ne da ngay wax ne su ma fekkee woon sama wayjur danaa ko defal nangam gis sa taw wayjur te defaloo ko loola hmm. day mel ne li ngay wax la koo koy wax nekkul ci moom noonu laa àndee ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ànde ko ak Cheikh Mouhamadul Fadil ci sembu jumaa ji ci dëkk bi ci yoon wi ak ci lépp lu ñuy lijjanti ba ni nga xamante ne bi ne la responsabilité bi ñëwee ci moom ci atum 1968 ci am tënk mm-hmm. lu mu war a taxawee taxawee na ko waaye nag li nga mat a bàyyi xel mooy mm-hmm. nangu gi nga xam ne nangu woon na ko kilif ak tënku gi nga xam ne tënkoon na ko ci ron ay kilifaam ba tax na xam-xam bii ñuy wax li muy yaatu yaatu kaddu gu leer gii li muy mën a wax li muy mën a lijjanti lépp nëbbu woon na giimoon giimoon na suuru woon na ci ron ay magam mës nangoo feeñ ci dara nekk na fi ba ni mu yilife kenn xamul ne sax mën naa wax nekk na fi ba ni mu kenn xamul ne am na xam-xam nekk na fi ba ni mu yilife kenn xamul ne am na mën na léppam daf ko seeyaloon ci biir ay kilifaam waaye keroog ba nga xamante ne nag wuutu na ay kilifaam nag ñëpp xam nañ ne lañ ko doon waajale lépp mate na ko sëkk ngir taxaw na taxawaay boo xamante ne bi euh, bett na mboolem jamono mm-hmm. ndax jàpp nañ ne koo xam ne mosoo koo dégg mu wax mm-hmm. mosoo koo gis mu jëf ma mm-hmm. soo koo dégg mu wane mu mu bind wala mu def lenn loo xam ne nii wane nag xam-xamam wala tolluwaayam wala darajaam walla nangam mu xëy jamono tegu ci loxoom bu waxee adduna bépp maa si déglu ko ci làmmiñ wu leer wa ci xam-xam bu bari ba ci orientation yu rafet yi nga xam ne moom laa def ak dégg gindi gi nga xam ne moom laa ñi. Hmm. ñëpp xam nañ ne kii kat ndekee ku mënoon a wax la. Hmm. waaye dafa tënkuwoon ci ron kilifaam ba lépp loo xam ne itte itteeloon na yoon wi boo cay wax kilifaam la cay waxal ca biir. Hmm. waaye dawul génn ci biti di wax. bi jëf jotee ñu gis muy jëf itam xam nañ ne la mu daan jëfkat kat ndeketeen ku masoon a xër la ku masoon a jàmbaare la ku masoon a bàyyi xel jamono la. waaye lépp lu mu mas a jëf ak lépp lu mu mas a euh, def daf koy delloowaat ci loxo yi ay kilifaam mm-hmm. kon nag Cheikh Abdoul Ahad mooy koo xam ne diirub li nga xam ne mu ngi nekk ci ron ay kilifaam dafa doyloo kilif ay kilifaam ci wax ak ci jëf ak ci lépp lu mu mën a doon mm-hmm. bi nga xamante ne dem na ba yilifit dafa jël ay responsabilité am fépp fu ay kilifaam taxawoon mu taxaw fa te mate ko sëkk fees dell place boobee. Hmm. kon daal sëñ Abdou su ma la bëggee euh, wax kan mooy Cheikh Abdoul Ahad ci tënk hmm. mooy koo xam mooy jàmbaar joo xam ne. Hmm. la ko lislaam sant lépp def na ko. la ko yoonu murit sant lépp def na ko. waaye la ko réewam lépp sant def na ko. te bu ñu demee ba ci biir waxtaan yi ba egg ci ay jëfam. yaakaar naa loolu dana mën a gën a leer incha allahu taala si Abdoul Ahad tabaarakallaahu tabaarakallaahu sëriñ Abdul Ahad Bousso moom sëriñ Muxtaar noonu nga ñu indilee sëriñ Abdul Ahad am na solo lool tabaarakallah mu mel ni daal uh, weesuwul ñetti was yi nga xam ne bu cin taxawee faw moom am yetti tànk door a mën a taxaw kon la mu sóoroon doon ko togg ci lu baax mi ngi ko tegoon ci fexe ba nekk ab jullit bu dëggu fexe ba nekk murid murid sadiq fexe ba nekk itam citoyen boo xam ne honnêteté citoyenneté tax na mboolem lu réewam laaj mu bokk ci ñi ci ñi fa jiitu su réew mi développé loxoom ma nga ca biir su lislaam ji jëmee kanam mucc ci lu man a doon ma nga ca biir su yoonu murit doxee na mu war a doxee te yoonu murit mooy lislaam waxin la waaye itam benn ci yooyu daal dafa mel ni kon mënta ñàkk mu mel ni kon euh, jaadu na yàlla na ci képp koo xam ne euh, bëgg ngaa roy ci sa Abdou Lahad nga fexe ba yeesal sa pas-pas bu mu wóor nga teg yàlla fa nga ko war a teg lii la yàlla digal ci ki ki mu doxale suñu digg ak moom muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fañ ko war a teg ak nañ war a royee ci moom tam na mooy roywaay bu mag bi sa loola rafet ca loola euh, sa digg ak ki nga xam ne itam mooy sa wasila te mooy Sëriñ Tuubaa nga fexe ba itam ni mu bëgg ab taalibe mel ko nga fexe ba mel noonu bañ ko génn réew mi nga nekk itam ngor ak jullit gi mu laaj ak liggéey nga fexe ba yooyu nga coloré ko loola kon loolu roywaay la bu am ne mënees na ko jàng ci Sëriñ su ko defee damay si ci sama wetu ko càmmooy muy sëriñ Abdou Lahad Jaxate sëriñ Abdou Lahad Jaxate dégg li sëriñ Abdou Lahad bu su Muxtaar wax ci sëriñ Abdou Lahad mm-hmm. eh, gendiku boo am ci li mu doon wax loo ciy dolli nga ñëwal nu ci dooru ñëw nag ci sëriñ Abdou Lahad dëgg-dëgg ay jëfam ci nit ñi dafa mel ni ay jëfam ku ko doon xaaj da nga ko xaaj yaari xaaj mm-hmm. benn bi mooy jëf ji mu jëf ci dëkk bii di tubaa liggéeyal ko sëriñ tubaa mm-hmm. taxaw ci def ko ba jëkk dëkk bi jëmm ba sëriñ bi ñaanoon ci matalabul fawzayni mu jëmmal ko ñu man koo teg bët man cee teg loxo muy muy muy bayit yoo xam ne toogul rek naan amin waaye dafa jëmmal bayit ya bayit ya dëggu ñu mën koo gis la ca des mooy mu def ko ci nit ñi ba nit ñi war a dëkke dëkk boobu yañ war a so nañ war a mel dëkk ba door a jag ndax bu dëkk bi jagee te jikko yi jagul dëkkin wa du baax mu fexe ba jikko ya set nit ñi sell ci xol sell ci xel ba mën a jariñoo dëkkin woowu kon boo doolee ci sëriñ Abdou ni nga déggee ni mu waxee nga ñëwal nu foofu yow sëriñ Abdou Lahad asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf euh, Cheikh Abdou Lahad Ka jërëjëf euh, Cheikh Abdou Lahad Moussa Mokhtar ci kàddu yu am solo yi nga xam ne euh, dégg nañ ko fi mu doon ñu indil kan mooy Cheikh Abdou Lahad ci gàttal defe naa ni ñu ko indilee macha allah leer na nañ ndax indil nañu ko ci ak feeñam jamono ci. kanamu Cheikhul Khadim ci njaareem ak la nga xam ne Cheikhul Khadim wax na ko ci ay xar baax waaye it yaakaar ji nga xam ne moom la amoon ci moom moom dikkal nañu ci Cheikh Abdou Lahad ci jikko ak ci jëf kon dangay mën a wax rek ne Sëriñ Tuubaa ci boppam mooy kenn xamul lu mu doon ndax moom tegoon na bëtam ci lii mu ko nar defal nar koo defal lislaam bépp loolu moo tax ñëpp bàyyi woon nañu xel yàlla teel koo jox xel mu rëy mu rafet mu mat sëkk ba ay kilifaam ñoom ñëpp ñu nanguloon ko loolu ba ñu ko sëriñ Saalix radiallahu anhu doon waxe na Seex Abdu day ni mu mel nekkul ba doon mag soo koy mel waaye da ko xëye woon ndax li aaday yoon wi te mooy topp kilifteef ak diisoo saa yu Cheikh Mouhamadul Moustapha daan bëgg tëral mbir lu aju ci yoon wi daan woo ñu ngi ko bokkal ñëpp ak doonte ay tànk lañ booba di ci waxtaan ak ñoom hmm. te jamono jooju it Cheikh ñu ko ni saa li Saliou waxe képp ku koy njëkk jël kàddu it xelam mu rëy mu rafet tax na danga bàyyi xel ay kàddoom waaye ku koy mujj jël kàddu it daanaka da ngay sukkandikuwaat xaw a doyloo ay kàddoom mm-hmm. kon lii sëñ Abdul Xuddus waxoon rek ne sëñ Abdou day mm-hmm. xelam mu rafet rek mën naa yor jamono mm-hmm. waaye loolu feeñ na ci bi mu toogee ndax boole woon na mbooleem loo xam ne kilifa diine ci ay màndarga war na ko mën a yor sa Abdul Ahad boole woon na ko ci jëmm ba mat sëkk mm-hmm. ba tax na saa su masaan àddu wala mu jëf rek mbooleem kuy kilifa diine da nga siggi ndax la Cheikh Mouhamadul Mourtala waxoon ci bi mu wàccee ne Cheikh Abdoulaye dañoo nax ba dem waaye su fekkee ne woon ne tëddoon na tuuti danañ ko seete te bu ñu ko seetee dana am lu ñu jëfandikoo te kon du dem ndax mel na dañ ko laaj lu tax mu ne koo xam ne day jëf jëfaaleel la wax waxaaleel la la féetewoo woon mbooleem jullit su jëfee rek yow lu nekkoon sa ci loo xam ne ko yéene woon a jëf si Abdul Ahad dala koy jëfaaleel sa xol da nga yàlla dina gëriif dutoo am benn ñaggi-ñaggi xol waaye loo xam ne da ko bëggoon a wax te amu foo ko waxee wala mënoo mënoo koo ko woon a wax mm-hmm. bu sabab waxee rek day mel ne day day sàq mi sab lañ ci mm-hmm. da daal di nëgëri fitam mm-hmm. kon loolu moo taxoon ñëpp nanguloon ko ba fa masaan yëkkati kàddoom ñépp bàyyeeg yaay yi doom yi ñëpp dañuy waaf ci kanamu waxukaay yi kenn du nangu weñ sax naa waxuma laa gone di wax te loolu kenn waxu leen ne kenn waxu leen ne si Abdou Lahad buy wax ni li ñu war a def waaye dañoo gis ne nit ku nit dafa bëgg njariñam mhm. te Cheikh Abdoul ay kàddoom dafa feesoon dell nekk njariñ képp koo xam ne addina képp moo la tax a jóg euh, Sëñ Abdoul Ahad daanoo daanale ay kàddoom loo bëgg a jariñoo ci sa addina da ko fekk ci ay kàddoom waaye it koo xam ne àllaaxira moo la tax jóg bu sëñ Abdoul Ahad daana la ay kàddoom mhm. loo bëgg a jariñoo ci àllaaxira da nga ko ci fekk mhm. ku yaar yépp tax a jóg itam kasaali Euh, kon daal Cheikh Abdoul Ahad euh, bu ma mënee tënkal tuuti ci jikkoom hmm. ak ci jëfam ci yoon wi ci lislaam bi maa ngi la ko njëkkalee ci li ma la wax sànq ci kilifa diine hmm. da ko mat sëkk ci wàllu xam-xam ba hmm. ci wàllu dëggu ga ci wàllu wér ga ndax daraan wax na dey maa ngi ñaan sama borom de képp koo xam ne su ma ànd ak yow du ma la mën a wax dëgg yàlla ba ma yàlla ba ma mën a ànd ak yow kon loolu lu mu jugaale lu mu màggaale la hmm. loolu feeñ na ci daan wax ne boo doon demee aras ak ñëw itam hmm. fii rek lañ lay xaar hmm. ndax xam nañ ne xaras kenn dëkk fa kon moom daan naw xaras ak def yëpp moom li mu naw mooy jëf te boo ñëwee boo fenee ñu wedd ko boo waxee lu boo waxee lu dëgg ñu wedd moom gis-gisam dafa weesu woon foofu waaw kon xamoon na ne lu waaye jëf ku dem aras ñëw moom rek lay jariñ waaye nag moom dafa nekkoon koo xam ne Euh, dafa dafa dajoon kàpp moom mm-hmm. maanaa bëgg jëriñ boppam mm-hmm. waaye jëriñ képp ku muy dundal mm-hmm. jëriñ képp koo xam ne itam ñëw nga gannaawam kon suñu Abdul Ahad foofu la ne woon jëriñ na ñi ñi nga xam ne ñoom la teewal jamono waaye ñi ko ñëw gannaaw itam daay mel ne sax ñoom la gën a ñoom la gën a jëriñ ndax ñi mu nekkaloon jamono fexe na ba aaral leen seen bii a ah muy leen wër bal benn yàqu yàqu yàqu bu leen tax a a yàqu duñ ko jege waxuma laa di ko laal hmm. kon la yéen waxoon ne hmm. sama dund day moo gën ci yéen ndax suñu borom moo waxoon ne wa ma kaana llaahu li yu'azzibahum wa anta fihim hmm. euh, du ma du ma leen mbugal fekk yonent bi mi ngi ci yéen waaye dama wax ne itam sama faatu yi moo gën ci yéen ndax su ma fi jógee itam euh, seen i jëf yëpp dañ koy gaaral ci man te su boobaa lépp lu ma ci si lu dul noonu dama koy falang jéggalu leen ko yàlla Sëñ Abdul Ahad noonu la mu doon ak dundam moo gënoon ci ñim doon euh, dundandoo waaye itam bu ñu wanee gannaaw itam day mel ne foofa la rawati hmm. ndax li ñu fi bàyyeel hmm. muy ndono li nga xam ne euh, fekkoon na ko fi hmm. mu aar ko sàmm ko ba nga xam ne kenn du ci dugal lu ci mënta bokk kenn du ci génne lu ci bokkoon ndax saa yu ma saan àddu daana wax ne daan bu ma waxee ci kaw ñu ne damay dañuy xuloo damay xuloo su ma waxee la nañu war def ñu ne daa mer daal dina ne xuloog mer waat naa ci yàlla du ko def kenn ndax lay tax di xuloog mer xam naa ko te mooy xëccoo njariñ ak xëccoo daraja rek la mm-hmm. te na yooyu yaar du ko def kenn mm-hmm. kon nag suñu demee ba gis jamono ñu bari di seen diggante di yàqu mm-hmm. te la koy waral du lenn lu xëccoo njariñ ak xëccoo daraja kon sëñ war nañu foofu bind bu tooy xëpp ni ko sëñ Abdul Muxtaar waxee it ci wàllu gone yi maanaa ndaw sëñ Abdul nekk na seen royukaay lu tax mooy Euh, bi mu am naa ci moom yaakaar ndaw lu ne war ngaa fexe ba sa baay yaakaar ja nga am ci moom du tas toom daa waxoon ne saa yu ma namete sama yaakaar baay yàlla naa dem wute ko bu ndaw lu ne fexe woon ba def noonu fexe ba sa yaakaari baay doo ko tas nga tas sa yaakaari baay ak sa bakkan jóge fi nga yemale kon kenn du am ci sa doom loo naqari kon ndaw ñi suñu Abdul Ahad seen royukaay la loolu moo taxoon suñu Abdul Ahad bi sa waxtaan waxee léegi la ma amoon ci Sëñ lépp da jël nekkat léegi mu laa mu xalaf nag kenn du ko dencal alalam mm. fekkee maa ko nañ ma ko jox ñu jox ko ñoom jox ko Cheikh Mouhamadul Moustapha mm. jox ko addiya mm. ne ko defal ma ko ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bi kon ku teel am jome ngi noonu bëgg xam yi li ko yàlla dencal lan la ndax nee na bu fekkee da ngaa denc dara ci banque wala lan saa yoo amee soxla sa xel ci lay dem daa bëgg bu amee soxla xelam dem ci yàlla kon loolu itam lu am am solo la li ñuy denc ñu ko génnee di ko def ci yoon yàlla ndax loolu mooy gën a sakkan ndax li nga xam ne moom nga fi bàyyi Euh, Yunus alayhi salaam daa waxoon ne ana koo xam ne alal yi euh, alal yi way yi moo ko gënal alal yi boppam hmm. kenn ku nekkoon ah mooy ku nekk sa alal yi bopp xanaa moo la war a gënal hmm. sa alal yi bopp nag mooy li nga xam ne moom nga jëf jiital ko waaye li nga fi bàyyi moom moomoo ko ñeneen ko moom hmm. kon suñu Abdul Ahad loolu la xamoon moo tax daawut nopp lu guddi daawut nopp lu ba bëccëg ndax daraan wax ne day nelawu guddi gannaaw suñ tubaa lañ xam waaye jamonoom kenn xamu ko woon ndax jamono jógee ñu ngi dukki dukki naan suñ tubaa nee na Eh, ñu def suñ tubaab nee na ñu def lii suñ tubaab ñu def laa ba kenn aw tël tëltoon dara suñu Abdul Ahad moo tax bi mu ñëwee mu jitteem jëpp liggéey bu àgg mu song beneen jël plan Matlabul Fawzayni bi nga xam ne eh, moom la suñ tubaab rëdd ci li mu bëggee tubaab ndax bu toog rek naan suñ tubaab ñaan ne ko dana am loolu moom gëmutoon loolu daa gëm ne ci ay loxo la war a jaar waaw tey ñun ñii fi nekk doomu aadama bu ko defut euh, Sëñ am na fulla yoo xam ne mën na fi wàcce ñeneen ñoo xam ne danañ ko jëf kon nag ñu def ñu def ko defe naa ne mooy ndam li moo taxoon Sëñ Abdul Ahad euh, nekkoon jàmbaar ci kanamu li ñuy ma nga ne sax léegi weesu na jàmbaar nekk jàmbaari jàmbaar yi ndax yi mu boole yëpp bi mu ba àggal dafa dafa jéggi loolu dafa jéggi loolu ba tax na Cheikh Abdoul Ahad mes naa wax doomu aadama day yàlla rek mat waaye suñu Abdoul Ahad day ca matak suñu borom ci la ko sedd ba lu mu jëf day mat sëkk bu waxee day mat bu jëfee day mat bu dee ci wàllu teraanga sax day day mat sëkk lan lanam du manqué kon suñu Abdoul Ahad eh, xam naa ne minit yi yes eh, bëriwut waaye eh, ci li mu jëf ci wàllu njabootu Sëñ gi moom da defoon ay doomi suñ ay ay ay Sëñ Tuubaa ndax bi mu toogee ci xilaafa gi moom dafa ñam responsabilité dafa daal di wax ne dama bëgg mboolem doomu Sëriñ Tuubaa ñu wax ma li nga xam ne moom la ñuy soxla woo ci dund ma mhm. gàddul leen ko mhm. loolu te noonu ñu la ko defee woon mhm. noonu ñu la ko defee woon moo ba waa barsàq yi Sëriñ Tuubaa bàyyi woon itam mujjoon na soxlaatuñu dara soxlaatuñu dara lépp mu gàddul leen ko ñi ñi nga xam ne ay magam lañ demoon bàyyi fi ay doom it seen lépp moo leen ko yore yoreloon noonu la ko defee woon ci seex yi defe ko ci taalibe yi ba kenn ku nekk nga am accès ci moom loo bëgg man ma ndax loolu feeñ na ci saa yu mbir masaan xew nit ñi dañuy ko mën a bind ay leetar di ko wax loolu feeñ na ci diggante euh, bi ñu amee problème ci rajo bi dana téeméer leetar geeg man yoo xam ne jàng naa ko mat na ko kon bu fekkee noonu ku tëju la nit ñi ñemewuñ ko te ñu bari dañoo yaakaar na si Ibrahima ku tàng la waaye nit ñi ñeme nañ ko ndax xam nañ ne moom njariñal xeet bi rek moo moo ko ñor mm. moo tax lu ñu mës a am ci problème dañ ko koy àggale mm. ndax dafa nekkoon seen avocat mm. nekk seen seen seen seen euh, euh, man ma wax ne seen syndicaliste di leen kaasal di leen xëccal di leen jañal kon loolu nag ku jiite ay nit defe naa ne euh, dana baax nga féeti nit ñi foofu ndax loolu rek mooy tax ñoom itam ñu gis seen bopp ci yow kon si Abdou Lahad ñëpp gisoon nañ ci xilaafaam ne wax dëgg yàlla euh, jëlu ko rek taf ko ci boppam jariñoo ko bàyyi leen déedéet wala moo tax ñu ñëpp di ko jooy fu ñu toll di ko di ko di jooy jooy xol lu xew lu ne nga dégg ñu ne bi suñu Abdou Lahad nekkoon loolu njariñ la man laa taxoon kon ñu ngi taxalu kooku incha allah ba kàddu gi ñëwaat si Abdou Lahad jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Jaxate ci am solo loolu nga xam ne dool dolli nga ko ci li sëriñ Abdou Lahad bu soo waxoon te moo di rek kilifa goo xam ne daal kilifa gu mat kilifa la ndax kilifa gu mat kilifa Euh, day wàcc ba tolloo ko njabootam ba njaboot gi mën a wax ak ñoom waaye day dugg ci seen biir di xam lu ñu nekke mm-hmm. loolu nga wax ne boo boo ko séenee ci kaw mm-hmm. day mel ni kaw gi xëy bëgg day tax da koy ragal mm-hmm. waaye ku woyof la ci biir loolu nag dara war la ko dul dëggu ëpp euh, noonu mu daan euh, di laaj yi tey nit ñi fu mu toll noonu daf ko niroog ki nga xam ne moom lañ koy nirooleel saa yu ne muy Seydina Omar nga xam ne moom noonu la meloon da daan génn di dugg ci biir kër yi di xool lu fa xew melo da ko amee woon daana taal wotoom sol lu woyof kenn du ko xam mu jékki-jékki ne ne ne dañar fenn xool la xew looloo taxoon mu daan wax ne su ma juumee mbooloo mu bari juum danañ juum ndax moom da daan diisoo di woo ay nit yu bokkut ñu dëgër mu di leen laaj li xew ba noppi nag dooru jël décision kon loolu mooy wasaawirhum fil amri wa idha azamta fatawakkal ala Allah waaye ngir njëkkanteeg waxtu wi junj nga sax loo xam ne moom laa bëggoon ñëw ak sëñ Abdou Lahad te mooy euh, ginnaaw at mu jot commission culturelle bi day tànd ab thème boo xam ne da koy gungee màggal gi ren mu jëloon al euh, dawrul xaayidi diini fil mujtama te yaa ngi tudd kilifta kilif kilifa ak kilifteef maanaa kilifa goo xam ne day jël ay responsabilité am ci biir société am maanaa euh, foofu lay ñëw ak sëñ Abdou Lahad soxla woon naa sax nga complétel ma euh, injaazaat yi li nga xam ne moom la doon lim ci li sëriñ Abdou Lahad def ci dëkk bi waaye ci ab minute nga ma koy résumé duggal ma nag dëgg-dëgg ci thème bi nga xam ne moom ngeen tànn te mooy dawrul xaa'idi diini fil mujtama nan lañ ko mën a nitoo ci sëriñ Abdou Lahad ginnaaw boo ma tënkalee ci gàttal rek li nga xam ne réalisé na ko ci ci ci benn minute te ñëwal ma ci loolu jërëjëf sëriñ Abdou Lahad ñu ngi lay sant sëriñ Abdou Lahad Jaxate euh, ci leeral bu am solo bi nga xam ne def na ko waaye day mel ne sëriñ bi ñaar yi dafa duggante hmm. bu ñu xamee Euh, lan mooy dawrul xaaju diini fi fil mujtama mm-hmm. ci lay réalisation yooyu di gën a neex xame mm-hmm. mm-hmm. rôle bi nga xam ne moom la kilifa diine war a am ci njaboot euh, réew mi nga xam ne moom lay dund wala askan wi nga xam ne moom lay dund mooy fexe ba lépp lu leen di jariñ adduna ak alaaxira mu teg leen ci yoon way tax ñu mën kaa jariñoo su dee loo xam ne dañ leen a war a orienté ñu tegu ca ci euh, ci waxtaan ak ñoom ci ak nooy nga def ko su dee loo xam ne da nga leen caa war a gax ñu def ko ngir jariñu ca nga galeen ci su dee loo xam ne da ngaa war a fexe bañ am ko ndax ay jumtukaay la yu ñu war a am te seenu am ko mooy tax seen jariñ ñu mën caa jariñu àdduna wala ñu mën caa jariñu àllaaxira nga fexe ba loolee ñu am ko mooy fexe ba daal ba nit ki am texe ak àdduna ak goog àllaaxira te lam ca mën a am loolu mooy yoon moom la kilifa diine war a féete mm-hmm. njabootam mm-hmm. loola nag buñ ko seetloo moom mm-hmm. taxawee na ci ñaar yëpp taxawee na ci ñaar yëpp mooy fexe ne ba nit ñi mu dox seen digg ak lu bon ba ñu ñëw gannaaw wala ñu ñëw gannaaw lu jiitu gannaaw lu jiitu ñu xamoon dara ne lu bon amoon na ñooñu dañoo far xamatu sax ne lu bon am na far ndax dox na seen diggante ak lu bon ba bii ab bi ñuy dund muy environnement bi ñuy dund gisatuñ fi leen lu bon tuubaa gii dey ndaw lu fi toll ci fanweeri at jëm suuf xamoo fu ñuy baale xamoo fu ñuy lambe xamoo fu ñuy futbale xamoo fu ñuy misike xamoo fu ñuy fecce sàkkaan ak fu ñuy naanee ka tuxe ku cigarette xeeñ sa bopp di metti sa bopp di metti mm-hmm. yam lii woon mm-hmm. wax ne bu fi kenn naan mm-hmm. bu fi kenn drogue bu fi kenn euh, tëgg sabar bu fi kenn fecc bu fi kenn euh, yu bari yooyu mu waxoon yëpp mm-hmm. ba mu doonoon ab lim mm-hmm. yaakaar naa ne loolu ndawi ñoom mm-hmm. ump na leen léegi te mu ne mag mag ñu fi nekkoon de daa dañ ko gis ñoom am na ñu ko daan def am na ñu ko daan gis te gis googu mu daan indi mën naa attirer tax ay ndaw bañ di ko def kon suñ ko gisatut xamatuñ ko lu leen di xëcc ñuy di ko def amatul kon dox na seen diggante lépp lu leen mën a gàllankoor ëllëg mu indil leen nag jumtukaay yoo xam ne dana tax ñu mën a fag euh, sàmm ba niñ ñàkk a xamee lu bon ñu mën cee doxee jëm ci lu baax mm-hmm. mooy bokk na ci xiirtal leen ci jaamu yàlla mm-hmm. boo gisee loxoom daan da waxtu wu ne daan daw jumaa ji fexe ba jumaa ji doon li gën a rafet ci dëkk bi mm-hmm. ci ci ni doxi ni jamono di amee donte noonu la ko fekkoon fekkoon na ko muy lu gën a rafet ci dëkk bi itam mm-hmm. waaye muy fexe ba taar boobu di yokk ba nit ñi di xemem dem jumaa ji nga xam ne ndaw yëpp mm-hmm. seen xel buñ masaan bër wala nangam nangam sa xel jumaa ji rek lay dem ngeen nga gis loxet loolu da lay xemem loo ci diine ndax lépp loo gis mu rafet wala mu taaru sa bët rek diine la ko diine lay doon da ngay jaa jàpp ne diine rek mooy mbir mi ba ca ca dox jëm diine nag su ko xam-xam laal taayee te xam-xam ñu wutal la fooy gëstoo xam-xam wutal la fooy jànge wutal la ay jàngale ay ay jàngalekat bu boobaa kon moom xam-xam moom day day daal di yomb woon boo amee xam-xam ba noppi itam gis foo ko pratiquer ci ay jaamu yàlla ndax lépp lu foo waraabul pour jaamu yàlla mi ngi ci sa kanam te lépp lu foo waraabul ngir ñàkk a jaamu yàlla gisoo ko ci sa kanam bu boobaat jaamu yàlla googu day yomb ci yow te noonu la fexewoon ba mu def ko muy muy muy muy muy muy muy kon mu loolu mooy fegal la hmm. texee dik ëllëg hmm. ci euh, gëm gëm la ko war a fexeer hmm. waaye mu ñëw nag ci jàppandal la nag sa mbirum tey yooyu yëpp su amee ba noppi dëkk bi ngay dund bi nga nekk di fi dund yi nga soxlaa am ci àdduna yëpp amoo ko bu boobaa da lay mujj obligé ci nga euh, ci ci ci ci ci aventure wu ji dem feneen foo xam ne li nga soxla ci àdduna xëy na daf fay am te bu boobaa la nga amoon ca fay nga jóge woon mën na la rëcc boo fa demee loolu moo tax mu doon taaxeel dëkk bi ci kaw bu ñu bàyyee xel ci gannaaw tuuti am na euh, ci taalu bi Sëriñ Tuubaa koo xam ne yàlla dénkoon na ko alal lool muy alxaj Njóoy Kebe yàlla na yàlla yokk ay leeram waaye boo seetloon ni ko sëriñ bi daan xiirtale ci te jamono yooyu Tuubaa mag mi daanaka ay dalukaay màggal lañ fi amoon ay seex yeeg ñëpp ay kër yi màggal lañ fi amoon waaye dawuñu fi sax ñi fi saxoon it tàmbalee woon a defar seeni kër maa ngi dégg xisa bu bu neex boo xam ne Cheikh Mahamadou Fadil radiyallahu anhu daa woowoon mag ñi ñu ne waa jumaa ji noppi na nag léegi defar leen seen kër yi euh, mag mu xoromu ca ñoom daan ko man de kaccat ma ca diw de moom kaccat ko ca ndax teraas na bu yàgg loolu kon yàgg mel na ne yàggoon nañoo bëgg ñu defar dëkk bi waaye moom bi mu ñëwee dafa jëmmal loolu ci taalibe bu mag boobu di alxaaj jóge bi xeer ko ci lim milliard yooyu au mu dem di ko investir ndakaaru mbaa mbuur mbaa feneen waaye na xemmeem loo morit yi te booba tabax bu seer hmm. boo ko defee Tuubaa daanaka kañee ko koy tëjal ak janax yi waaye kenn dëkk fi woon ci hmm. waaye juróom-ñaari kër hmm. yoo xam ne genn kër gu nekk bu ko luyee woon ndakaaru ay millions la ñuy am def na ko fii ci Tuubaa ci li ma la waxoon ne la lu euh, luy texee dik ëllëg di ko faggul texe tey ëllëg ci loolu la doon liggéey ci nit ñi kon daal li ma waxoon menn mbokk ba léegi moom la may saa ma gisee ne ma cey sëñ bi li nga ma waxoon mhm. dañuy waxtaan ci euh, taxawaayu kilifa yooyu ma ne ko man de sama turandoo nit la defar mhm. waaw ñu bari ñi ngi jàpp ñi ngi concentré wu ci li mu defarul dëkk mhm. waaye sama turandoo nit la defar kon Cheikh Abdoul Ahad nit la defar ngir waajal ko mu mën a doon koy jariñu tey mën a doon kuy jariñu ëllëg waaye mën a doon itam koy jariñu aw askanam tey ak ëllëg kon daal Cheikh Abdoul Ahad loolu mooy li nga xam ne mënoon naa ko tontu ci question boobu nga xam jërëjëf mu mel ni euh, danaa dellusiwaat ci yow waaye bala maa dellusiwaat ci yow damay ñëw ci euh, sunu menn mbokk di mbokk ci dëkk bi waaye itam di mbokk ci ki ñuy waxtaane di aw turandoom muy sëriñ Abdoul Ahad Jaxate moom sëriñ Cheikh Jaxate sëriñ Abdoul Ahad Jaxate doon kenn ci dëkk bi nekk chef de village Touba Mosquée doon itam mbokk ci sëriñ bi di taalibe Cheikh Abdoul Ahad mu yar ko waaye nag mu bokk ci liggéeykat yi nga xam ne dañuy liggéeyal Sëriñ ab Lahad euh, di itam kenn ci conseil yi nga xam ne dañuy conseiller comité euh, commission bi mu mel ni Sëriñ Abdou Lahad Jaxate euh, dañuy ñëw rek yow itam ci sa turandoo sa digg ak Sëriñ Abdou Lahad waaye sa digg diggante sa jur ak Sëriñ Abdou Lahad moom la nuy taataan ci yow boo nu doon wax ginnaaw ba ñu la nuyoo dara la Sëriñ Abdou Lahad Jaxate Euh, di am mbégte bu baax ci séq ak yow jataay bi ak say contribution yoo am solo yoo xam ne da ko di séq ak kuréel gi euh, sëriñ Abdou Lahad sa turandoo euh, bu fekkoon ne dañuy tënkal boo ko doon boo ko doon résumé ci jàngat jikko yaag jëf yaag macha allah xel mam yoroon ak nu mu doon jëflanteeg nit yi àdduna yeeg bokk yeeg lépp boo ñu ko doon fàttali tey noo ñu koy mën a tënkale ginnaaw sa digg ak moom ak sa digg ak sa wayjur sa digg ak moom. bismillaahi rahmaani rahiim ñu ngi leen di siyaare di leen ndokkule yéen ñi nga xam ne yenn liggéey liggéey bu tedd bi commission culturelle bi ak ñi ngeen ko bokkal ñépp sa turandoo nag di seen turandoo yéen commission bi yëpp nga xam ne loolu bokk na ci day wanewaat rek jagle yi ko Sëriñ mm-hmm. moom booy wax ci moom mm-hmm. da nga dul xam fooy tàmbalee mm-hmm. ak fooy yem kon day mel ni lu sa xel njëkk a daj rek mën ngaa tombe ci loolu buñ ko mën a melal daal ci ci melokaanu doomu aadama ak lu xel nangu da ngay jàpp ne Sëriñ Tuubaa mu dellu si waatoon jamono doon jonjoo ak murid yi diggam ak yi nga laaj léegi muy bokk yi ak taalibe yi ak réew mi bu dee ci bokk yi bokk yi nag bu ñu ko waxee mooy ku bokk ci askan yëpp rek te moo bokk ak sëñ bi lañ bokk ak moom bokk na ci rek seede yi fii ñu toog muy kër sëriñ Tuubaa gi bi mu ko bëggee liggéey mm-hmm. ak jëm ca daj ci coono mm-hmm. yaa ngi gis turu kilifa bokk yooyu bokk ci yoon wi tey mm-hmm. bokkam ñu naan néeg sëñ diw tabaxu sëñ diw loolu ci màndargaal liggéey bi sëñ la bokk bokk na ci itam xelam mu rafet ak bëgg sëñ Tuubaa wax na ne njëkk bi muy doon sëñ Tuubaa daf doon def képp kum xam ne ci réew mi askane lañ la ci borom xel yu rëy yu rafet yi ñii guddi la fay dem ñii digg bëccëg di gëstu natt seeni xel lam ci mën a jariñoo euh, ba bi nga xamee ne ñëw na doon Sëñ Tuubaa pastif bi ak bëgg sañ Tuubaa gi jural na ko yim doon ci wàllu bu doon lu ñuy noté la mu jàpp ko ci xelam jëfandikoo na ci lu bari loolu moom lu tubaab di wax taille sur mesure daf dee natt bu dee ci diggam ak bokk yi ba tey danaan wax ne ak bokk lu yàlla def la kenn boolewul sa bopp fa nga bokk ak bokk nag boo ko bëggee rafetal dangeen di bokk yéene bokk pexe bokk la ngeen am boo ko defee bokk ga rafet bokk boo bëggee mu rafet da koy bàyyeeg la mu am te bokk ak moom la nga am te bu ko wax wax ginnaaw loolu tabax na ci lu bari bokk itam daan wax ne yet bokk na lay tax ñu ràññee la ca biir bokk ga bi ci njëkk mooy dangay am xel mu rafet te bañ a ñaaw njort bi ci des dangay ngay tabe ci la la yàlla wërsëgal te bañ a jàpp ku la cay delloo ak pay mm-hmm. ci saayir mm-hmm. ndax nee na jikko mm-hmm. ngëneel ma nga fa yàlla waaye suñu borom bi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi ci jikko la ko tagg moo tax nee nag ku la mën di jur ku la gën jikko rek boo muytul mu gën la moo tax fexe leen ba baax seeni jikko bokk na ci ay ndénkaanam ci li nga laaj léegi euh, nee na ku la gën a mën a def lu baax ëpp law fit nee na bari soppe day moom ñëpp sopp la moom yàlla jégleelu ko kenn waaye nee na boo bëggee ñi ëpp sopp la bu ko saw fit mat matee da fekk la ñëpp bëgg tamit lu baax yow nga ne ca ta sax ca bu yàggee ku bëgg lu baax bëgg fekk si la yooyu ay jikkoom la yoo xam ne loo ci ballu rek daanaka mu doy ay seede ci moom bu dee ci digg ak ah, jamono da wax ne àddina yàlla mi ko bind moo ko bind def ko daarul xurur xam nga ku ci sonnam ki ko bëgg a jagal ndax li nga ci xam lu mu bari bari nee na xam nga loolu ñuy wax sa ndax yi dox ci kaw garab yi nee na garab gi mu dar li mu ci dar rek la xam ne mooy garab gi nee na àddinaa ngoog loo ci dar rek mm-hmm. jàpp nga ne loola moom mooy jàppal ne loola mooy garab gi ci loolu muy misaal mm-hmm. moo tax nee na xam ko lu jafe la mm-hmm. waaye nag boo bëggee nag di ci xam mm-hmm. na ndax nee na xam ba xam jeex xam yàllaa ci gën ndax boo xamee yàlla yàlla ci boobu moom moom xilmu la du niya nee na ci la lay jox nee na man ba ban jeexit ma nekk sa jamono ma nekk sa bokk koy gën loo man man loo bari man man te mënuy woog say bokk mënuy woog sa jamono tële dana la dab loolu bokk na ci lim ndote woon lu baree baree bari nee na it foo gis koo xam ne ci mbirum àddina rek lay wax dafa toog ba yàgg ma ne la man ne ni ma jaaxlee bul ko laaj lu ko jaaxal nee na mag mu ànd akum xelam dañu ko réer nee na bu jaaxlee ne ko da jaxase ku jaxase jaaxle fexele leen bu leen jaxase euh, bokk na ci àddina tam ni koy lim ci lim ci lim ci lim ci lim ci lim ci jàngale nee na nanguwul yaar nënguwul bàyyi nanguwul jàpp loolu xam nga am na loo ko ciy laaj su boobaa. loolu mooy kon nit ciy def ak moom. loo xam ne nanguwul jàpp nanguwul bàyyi. ndax nee na boo ko jàppee. àddina fa mujjee ña ko jàppoon ñëpp. ci buur yi àddina yi. ñu ko joxoon seen bopp. ñëpp ci suufee leen la mujj ak ñoom. moo tax jàpp gi. foofu la jëm ak yow. nee na bàyyi itam nag boo ko bàyyee yi yi la nga dul man dara te loolu moo tax jàpp gi bu ko weesale yi nga mënta ñàkk ci àddina ba mën koo jaamoo yàlla nga jàpp ci la lay may loola moo tax nee na nanguwul jàpp nanguwul bàyyi mm-hmm. boo bàyyee mu yóbbee la lii soo jàppee mu yóbbee la lii mm-hmm. Euh, bu ko defee nag moom loolu la doon doxe ci ñim siqaloon ndax nee na foo mas a gis koo xam ne dafa weesale boppam fa ko yàlla yóbbu nee na ñey ami bët te ami settantal nee na ñooñaay njëkk jëppi kooko moo tax nee na fi la yàlla yóbbu sax mët teg sa bopp waxuma ak fa la nit ñi yóbbu ndax nee na nit ñi ñi ci ëpp liñ man mooy li ñuy wax tong la ci ba nga ne ca kaw nee na saa boo weesoo njobaxtanul lañ la doon tonge nag ndax nee na kaw mënu su caa yàgg boo fa àggee ba wàcc jot wala noppalu si ca fa nga na nga fa ne tongee la fa sës mooy ñaan ñi la tongoon may leen ma loxo ma wàcc nee ñoo mënatuñ daa jot ndax dañ laa tong ba jotatuñ la dañ lay jox ngant fi saasi yow kon dañ naan la ah ñun sëñ bi kon seetal rek kon noo def ko wàcc nee foo teg sa tànk nag foog nga naggamtal ko ba xam da nga rësam déet mm-hmm. nee boo ko fa tegee wóolu ko nga teggi tegaat feneen soo demee nag ba foo ko teg sam xel du la doy mm-hmm. la fa sas yow xam nga ko mooy cëppeelu mm-hmm. te lu ne xaj na ci moo tax nee na booy yéeg del xool suuf ndax wàcc da du wees loolu daal sëñ bi buñ ko toppee. tabaarakallah ay tomb la yoo xam ne. tabaarakallah sa turandoo moom kenn mënut jeexal daraam. dara da ngay mos rek. di barkeelu. jërëjëf sëriñ Abdoul Ahad Jaxate euh, ci loolu gënu indil mel na ni mënutoon a ñàkk ndax wet googu dañ ko junjoon sax te tudduñu ko muy wetu xikma gi nga xam ne daana ko jàngale muy xam-xam bu xóot boobu nga xam ne. moom la daan sotti ci kaw nit ñi loolu nga ñu indil wet googu am na solo lool noo ngi lay ñaanal suñu borom itam euh, may la wér ak gudd fan. noo ngi sant ci kàddu yu am solo yooyu xanaa ni ñuy def rek mooy jéem jox sëriñ Abdou Lahad ci ñaari minute rek. nga tënkal nu rek euh, commission culturelle bi seenu programme bi toll ni ak màggal gi ñu jëm ci ñaari minute rek ñu tëj jotaay bi. jërëjëf sëriñ Abdou ñu ngi day sant bu baax di sant sëriñ Abdou Lahad Jaxate ci. di nga xam ne indi na ko tey dafa mel ne lu mëntoon a ñàkk la ci waxtaan wi taaral na ko lool rafetal na ko itam mm-hmm. ñu ngi ñaan sunu borom dolli ko kattan dolli ko wér moom itam yaakaar yi nga xam ne moom la ay kilifaam am ci moom mm-hmm. ba dénk ko liggéey bu am solo bi ñu ko dénk mm-hmm. yàlla na ko suñu borom jàppande ba mu àggale ko fu kawe njortam te lépp ñu ànd ko ak ñoom barki Sëriñ Tuuba suñu borom defal ko ci ndam lu mu sa defal kenn indahu wali zalik li fàttali rek ne ñu ngi ci wàccaayu màggal gi wàccaayu nag dañ ko fa baaxoo waajale ay waxtaan yu am solo hmm. bokk na ci table ronde boo xam ne ñu ngi koy waajal incha allahu taala te muy boo xamante ni bii dañ ko war a def ci kanam tuuti muy uh, rôle bi nga xam ne moom la kilifa diine war a taxawee ci société bi hmm. te dafa mel ne bu ñu déggee li sëñ Abdou doon wax léegi rek hmm. day wane ni sëñ Abdou Lahad jëmmal na rôle boobu nga xam ne moom la ci waroon a kii taxawaay yi nga xam ne nag moom la kilifa di taxawee ci wàllu social bokk na ci ci doom yi ñuy waxtaanee ci waxtaan woowee waaye wat wattu gi mu war a wattu ndono li hmm. ak sàmm itam euh, bien yi nga xam ne mooy bien commun yi nga xam ne moom la euh, communauté bi moom hmm. ak ni mu ni mu ko ni mu ci war a taxawee ba li ñu war a am ñu am ko ak nu ñu ko war a jëfandikoo it ñu jëfandikoo ko hmm. loolu itam bokk na ci doom yi nga xam ne moom la ñuy waxtaan ci table ronde ñu ko war ko def ci anam di soññee it ne fub taalibe nekk war naa delloo njukkal Cheikh Abdoul Ahad delloo njukkal googu nag bokk na ca teew ci bi bisam bii ci ay teewin yu bari yu wuti teew ci sa jëmm ñëw siyaare fi nga xam ne fi nga ko fi nga ko baaxoo woon a fekk fàttaliku na nga ko daan gisee ak na nga daan jëflanteek moom waaye fàttaliku ko itam ci alquranul karim mi nga xam ne ku ne xamoon na digganteem ak moom fàttaliku ko itam ci xasida Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ku ne xamoon na digganteem moom ndax kat kenn mus sa dégg mu wax ak ñun ba noppi te waxtu waxu wax ja alquran àndu ca xasida Sëriñ Tuubaa àndu ca kon képp ku koy fàttaliku war nga ko fàttaliku ci alxuraan war nga ko fàttaliku ci xasida Sëriñ Tuubaa yooyu euh, fàttaliku ko itam ci bernde ndax ku mas a ñëw ci moom berndel na la moo xam ngay gan moo xam ngay dëkk moo xam ngay mbokk moo xam nga dib jàmbur hmm. moo xam nga dib taalibe moo xam ngay taalibe keneen kum mën a doon rek berndeel na la bernde loo xam ne mat na kon nañ ko hmm. fàttaliku ci ñett yooyu hmm. alxuraan xasida ak bernde waaye ñu ngi soññ ndaw ñëpp ñi nga xam ne xëy na fekkewuñu woon jamonom waaye tey ñi ngi dundu ci loo xamante ne bii moom barkeem ak taxawaayam bu ci la ko amee ñoom it ñu bàyyi xel Cheikh Abdoul Ahad moomu dañ ko fàttaliku bu baax a baax a baax bis bi nag ñaar fukki lay doon ci weeru kori bi euh, danañ ko waajal itam beneen bis boo xam ne nii dañuy woo ay borom yi xam-xam yoo xam ne ay taalifkat lañ di ay bindkat muy bis bi nga xam ne moo jiitu màggal gi incha allahu taala ñu ñëw gaaral ay xasida yoo xam ne santoon nañ leen ko ñu war ko def Cheikh Abdoul Ahad def ci euh, àllarba ji nga xam ne moo sës ci màggal gi hmm. lu ko jiitu itam talaata ji ko jiitu hmm. conférence sët Cheikh Abdoul Ahad Mbacké war nañ ko def hmm. fii ci kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké kon mu mel ne màggal gi moom tàmbali na euh, ci bu yàgg euh, noonu ma la ko waxee muy table ronde bi ñu war a def ak conférence sët yi ak ngontum taalifkat yooyu nga xam moom la ñu war a def ak bisub màggal ga nag mm. bisub màggal ga nag bu ko kenn wóotal ne ko ñëpp teewee ndax njariñ rek a ci nekk loo xam ne ànd ak benn lor mm. cérémonie officielle bi insha allahu taala mm. bu ñu jullee timis ba noppi lañ koy def ci njiital sëriñ Sidi moom Cheikh Abdou Ahad Mbacké ak kilifa yi nga xam ne ñoom la ko seqal ñëpp ñi ngi séntu ñëpp te yaakaar ne ñëpp danañ ñëw tey ñaanal ñi ñëw ñëpp ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm te daje ngërëmul sëriñ Tuubaa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ Abdou Ahad Bousso jërëjëf sëriñ Abdou Ahad Jaxate jërëjëf mbokk yi ñu doon seetaan Euh, mu ngi nii màggal gaa ngi noonu di ñëw sëriñ Abdul Ahad mi ngi noonu jëriñ Sénégal jëriñ lislaam yi njariñ lu toll noonu Cheikh Abdul Ahad kum jariñool jëfal na la soo ko gisee soo ko gisul jëriñ na kon rikk euh, ku mënta yéegit mën a bés ku daanu euh, bu bis ba akse képp ku ko man na nga jàng ab kaamil jox ko sëriñ Abdul Ahad addiya soo ko mënee def ñett baax na soo ko mënoon nga def ko benn berndeel njaboot gi bañ yëg na tey la bisub jàmbaar ja ñu fàttaliku jikko yi ki nga xam ne am nañu royuwaay bu mag a mag a mag loolu nag ñëpp képp ku di jullit war na la rawatina ab murid waaye nag ñi ñu tuddee Abdul Ahad moom day obligatoire ci ñoom képp ku ñu tuddee sëñ Abdul Ahad delloo amal nga ko njukkeel loo xam ne mënoo koo fay ndax bañ la ko tuddee rek la am lu mu la lu mu la yoreel loo xam ne wax na ko ñëpp di ko xam jëruñ koy tudd war loolu ko aw turandoom kon loolu jar na képp ku ñu tuddee Abdul Ahad yow na nga berndeel ña nga nekkal bu dee néew ci dëkk boo nekkee ci dëkk bi nga jéem a def añ bu baax yóbbu ko kër sëñ Abdul jàngal ko kaamil kon bokk yi lii mooy li nga xam ne moom la leen mooy jataay bi leen commission culturelle bi indiloon euh, ñu di leen jégglu di ñaan suñu borom mu eggale na ci bis baak jàmm te mboolem duñu ci def suñu borom nangul na ko te yàggal fi sëñ Sidi Mokhtar yàggal fi sëñ Sidi sëriñ Sidi sëriñ Abdou Lahad ak njabootu sëriñ Abdou Lahad gépp ak mboolem murid yi ak mboolem jullit yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi